يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ay bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci saveur planétaire macha allah fas yéene dellusiwaat ak yéen tey ci kàttanu yàlla mbokk di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar di leen wàcc seen wàccuwaay macha allah di leen ñaanal yàlla yu àddina ak àllaaxira di ko ñaanal ñëpp macha allah tey sàkku ci yéen it ngeen ñaanal ñu ko yal nañu ko yàlla boole defal ñun ñëpp. macha allah alhamdulilah mbokk yi maa leen ko diggoon bon nag tey alhamdulilahi rabil alamina yàlla may nañu ñu ngi nii fas yéene ci jublu euh, waxoon naa leen ton bu xonq bi voilà ton bu xonq bi euh, boobu nga xam ne dañu màggaaleek moom sax daan ko jënd suñu école à que sama yenn ngalaju yi nga xamante ne daal moom laaj ci fas yéene réel rek fase ko sama kanam donc rapidement rek euh, rak tak suñu ingrédients yaa ngi nii Euh, dañuy soxla tomato de fes euh, tomato de paste moom mooy euh, tomate concentré loqati bi mi ngi ni gis nga jël na ci benn kuddu bi ñuy lekkee ki oignon vert la ci samay ngalaju la bokk ki soble la ki poivron baby poivron bu xonko ak bu orange bi la jël nale li ñuy gis ni mom moy paprika bi paprika bi moy bi kaani bi kaani salade bi voilà mais bi pat bi la donc du soxla may use bi moo tax ma génne ko pour wan leen du ma jariñoo bi ndax am naa pat bi ba pare dama ko bëgg dóor mu daanu voilà donc euh, bi ñu ci am sax bu suite bi la bi nga xam ne saful kaani mais am na yoo xamante ne xatt ak kaani la def we xatt sax macha allah donc ñu ngi fi ak suñu xorom ak suñu poivre ñu ngi fi ak suñu tuuti vinaigre cidre de pomme bi laa jël suñu ñaari feuilles yu ñu ngi fa ak suñu kaani <laughs> bu verte bi kii dama ko ciy ubbi rek mu parfumé ko sinon ku mu neex nga nokk ko saale ko ci euh, dégg maam mu gën a ubale foofu kii sama persil bi ma haché woon la ba pare trempé ko ci huile d'olive pour bañ mu gaaw a yàqu voilà ñu ngi fi ak suñu huile d'olive ak bien sûr euh, ndeyu mbill maa ngi kooku mooy pinton mangook muy euh, purée de sardine bi voilà pâte de sardine bi rapidement rapidement ce soir inchallah on va préparer euh, pinton voilà ce soir euh, je vous propose pinton alors pinton comme euh, je vous l'avais dit la dernière fois c'est une pâte de sardine euh, qui est très populaire au Sénégal manchallah manchallah pendant le ramadan et la version que je vais préparer ce soir c'est avec de la sauce rouge normalement ça doit être pimenté mais bon comme vous voulez. Voilà. <laughs> S'il y a des enfants dans la maison, on mange pas euh, beaucoup de piment. Voilà donc euh, pour euh, la recette de ce soir, notre pinton, on aura besoin du pinton, c'est de la pâte de sardine en conserve, voilà. Là, on a de la tomate concentrée, ça c'est purée de paprika, voilà. J'ai ça, si vous voulez, vous pouvez prendre, utiliser ça, mais moi j'utilise la pâte, ça c'est des cébettes. On a des oignons verts que j'ai ciselés, des oignons, chop chop chop. Euh, là, on a euh, des poivrons, les mini poivrons, les bébés, le rouge et euh, l'orange, rouge et orange, ok. Là, on a du poivre, sel, et là, on a un peu de vinaigre, cidre de pomme, on a quelques feuilles de laurier. Ça, c'est du persil que j'avais haché et j'ai mis un peu d'huile d'olive là-dessus voilà, pour mieux conserver ça au frigo. Et là, euh, c'est du piment vert. Voilà, ça c'est du piment frais, piment vert. Et bien sûr, on aura besoin euh, de l'huile d'olive pour sauter nos nyamatos. aywa ñu ne ko ci réel <laughs> tey moom bi. Ah, très bien machallah. mbokk yi. bon nous ñu commencé fii macha Donc dompa tuuti ci xorom si mu judduwaale ni ko mag ña daan defee jël suñu euh, soble bi ak poivron yi revenir ko voilà sauter l'en. ba ñu tiit awa ah, très bien mbokk yi ñoo ko gisandoo gis nga nii soble bi tiit na voilà léegi dañuy ñëw jël suñu tomate concentré ne ko ci réel la pâte de tomate purée de tomate pâte de tomate comme noonu lañ ko mën a woowe voilà ay ma ngoog léegi comme laaj bi dañ ko fàtte woon a génne li ñuy def parce que fi mu ne nii dañuy njëkkoon toog waxtu wi dañu jël ci suñu poudre poudre aay bi rek ñi ngi fekk pëndax mi voilà njox ci lu tolloog ñaari doomu laaj rek voilà ay en poudre garlic powder mën nga ko gis nga ko nii daal di tëbal yëf yi tuuti bàyyi ko mu nongi nongi ñu daal di ñëw nànk jël suñu paprika ba nekku ci réel voilà parce que moom it déjà xonq na aw oh, très bien macha allah ñu may ko benn petit ñulug fi defoon kaani gi parce que bu ñu fàtte il faut tomate bi ñor petit ñulug rek daal di wàññi bi bàyyi leen ñuy toqi toqi xaaral ñu vinaigre ko léegi ne ko ci réel vinaigre ñu daal di ko léegi foofa daldi di toj su ko defee suñu kaani gu vert gi ñu ne ko ca tuy léegi ubbi ko rek sànni ci voilà pour mu parfumer ko rek voilà très bien oh, très bien gis ngeen ko nii léegi ñu assaisonné poivré ko ba mu saf dama ci bëgg mu saf ci sàpp dolli tuuti sel bu ñu fàtte thon bi dafa saf xorom oignon vert bi mën na dugg si léegi voilà bàcc bàccal leen bu ko defee moo ami thon mën na ñëw moom it ci coow li ñu wàññi fa bi nag def ko fa bu ndaw lenqali potu thon beek tuuti ndox bàyyi leen ñuy tuyi tuyi ba. ci kanam mbokk yi gis ngeen ko nii muy toqi toqi gis ngeen ko nii. yi ni yep eh, ñam yi nekk ci biir dama bëgg muy koñom légui gis nga ni à la dernière minute ñu jël suñu persi ba ne ko ci réel rek dal di fay waaw fofu dal di toj merci way penton bangi, <laughs> ki moy mooy ton waaw mburog ton wangi. bokk di leen wax sama penton wu tay bi inshallah mati diouf la ci fasiyene yakal sama taw bu jigen waaw kokoy doomu emily ndaw kokoy doomu farma ndaw koo kookoy doomu katti ndaw ak maam faama ndaw maa ko ci yekkal man koo kookoy jigéen xanaa xanaay wax day jeex très bien juufa ñu xobaay na rees ak jàmm merci waay merci beaucoup aywa très bien macha allah très bien mbokk yi wóop pëlew <laughs> këf kaa ngi suñu penton wa ngi na la bu xonq bi dooraaleel naa leen may Maymuna gi nii à côté ki mooy may mun a nees gi mayonnaise gi mi ngi <laughs> penton wa gi ak Maymuna nees à côté waaw moom baguette nag moo nam yi man yéen a ma gën a xam sama préféré googu bopp koñ googu la mooy lii ngeen di seen nii maanaam li ko dalee ne ba wàcc fii ci suuf doy na bu sëkk ak barke narees ak jàmm mbokki di leen wax ne lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire gis ngeen ko newoon nañ leen dinañ leen indil macha allah beneen version ton bi bu xonq bi mu ngi nii moom it ànd ak ay bagaasam ne guuj waaw neex ba mel ni ma dee yem si. aywa oh, très bien macha allah très bien. <laughs> mbokk yi yëf yaa ngay wañaaru de ña nga ca mbaay mbaay bay taaweeku. ah foofoo ngay toj de ma ne ko ci pinton baa ngi nii gis ngeen ko soos bu xonq bi maa leen ko waxoon ne woon naa leen incha allah dinañ leen ko indi gis ngeen kook ay yu sew sewaanam yu ñu bàcc ci biir nga xam ne boo yëy da ngay a dajaale tuuti yu sew sewaan yëf yi bañ a mel ni purée ci sa gémmi bi ñu ni dénn waa ñu doxantu ba fii daal di leen yónne walla may mun a nees bi waaw ku mu neex rek benn côté ndey jooru mburu bi mayal ma ko ndànk ci pinto bi côté càmmoñ bi maanaam fennee ci kaw mayal ma ko ndànk may mun a gi foofa daal di xalangu très bien merci beaucoup mbokk li la leen indi incha allah vidéo complète yi nañ ko dugal ci youtube bi di leen ñaan baaraamu kaw sela la wiccax baaraamu suuf la fente foofa daal di bonde merci beaucoup très bien wépp liw <laughs> bopp mburu mon ami bopp mburu mon ami